yàlla yokk ay leeram te bar sax moom Muhammad te suñu borom taaf ñu ci barkeem nekkoon jëmm joo xam te ni lu lu lu liggéey sëñ Tuubaa ko woon ci la doon dox guddi ci la doon dox ba ci ba ci bis bi muy dem bis bi muy dem yónn na abbiyaam yónnee ko ci sëñ Muntaxa ci ngoon ci tàkkusaan gi mu làkk kon kooku moom daa liggéey sëñ Tuubaa ba làkk waaye la ko royee muy sëñ maam Serigne Fall Baalu Mouridine moom moom la ko royee mu nekkoon jëmm joo xam ni ma kilifaam yi fi nekkoon yëpp ay waajuram ak magam ñëpp la topp ni leen war a toppee ñëpp bañ ko joxee sëñ Fallilu ba ko sëñ mënu saafaal joxee sëñ Fallu ba suñ jonni tey ba suñ jonni tey loolu lay dox ci loolu lay dox ci loolu lay dox guddi ci loolu lay dox bëccëg waaye nag macha allah yal na yàlla yokk leeram li ko sëñ Muntaxa seere rek doy na sëkk ndax neena na fii mu teg na ko ci loxoy Sëriñ Tuubaa mu teg ci loxoy waajuram maam Serigne Fall maamam euh, ku fi nekk nag di sëñ am ni Mourou Mbenda moo wuutu maam Serigne Fall doon ñetteelu xalifa sëñ Mourou Mbenda moom it naka naka noonu kazalika ci loolu rek la doon dox ci loolu rek la doon dox ci loolu rek la doon dox nekkoon gi mujjoo xamante ni maanaam nurut ak taalib bi ñuru ko gi da dab waaye ci taalib rek la mas di bañ na ko sax. fa ko waajuram dëloon ci ndigal sëñ mënu saafaal muy daaru xudóos fa la mas di ne fa lay bi lii bi bi yàlla dogalee lii sëñ abdourahman ci boppam mi doon jëwrinam moom sëñ seex gaynde Fatma moo jàpp ci loxoom dem ba ci sëñ toxaa ne ko jébbal naa la ko ndax xalifa bu seerafaal kat xalifa sëñ a dong moo ko mën a dékku ne ko xalifa bu seerafaal kat xalifa bu sëñ Tuubaa dong ko mën a dékku loolu nag macha allah yàlla na ko yàlla yàggal te moom sëñ am bi ñoo ngi ñaan ci doole sëñ Tuubaa ak Sëriñ Faal suñu borom yàggal ko te wéral ko mu nekk jëmu joo xam te ni xol bu rafet la yor xol bu rafet la yor lu baax dong ko ñor waaw sëñ am bi lu baax dong ko ñor xol bu rafet la yor mu nekk jëmm joo xam te ni lu dul Sëriñ Faal ñoru ko lu dul Sëriñ Faal ñoru ko ci lay dox gudd ci lay dox bëccëg waaw ñu ngi ñaan nag yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko